asalaamaaleykum waa Mouhalim Espoir TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram waaye laataa loolee kuy gën ci page bi te abonné goo ñu ñaan nga abonné bés cloche bi partage vidéo yi tey laa yëg tey commentaire loolu dina yokk dooley seen bi gars yi kon daway leen di abonné way di commentaire tey laa yëg loolu mooy yokk dooley seen bi ñu door xibaar yi dooree ko fii ci sunum réew rek koreenu kaay na ci ñanco Sadio Mané nee na Sadio Mané kat match bi doon dox Liverpool ak West Ham Sadio Mané moo ma ngay lakke bu a moom la gën a Sadio Mané moom la gën a dox foofee ne ci Liverpool ndax saison daaw ba naa yox yoxi tuuti ba tey ji ñëw na ci

Madrid ñu fàttali leen ne PSG moo mane woon Real Madrid benn bal ci dara la ba nag ma ngay amee foofee ca Real de Madrid kon daal waa Real war nañoo jëkkal seen taxawaay waa Real Madrid nag fan yii yëpp ba jugee ca match boobu nga xamante ne nii moom lañ amoon PSG boobu léegi daal dañuy dóori match waaye ñoom waa PSG daal ngi ci guuta Messi Neymar Mbappé ñoom daal boobu léegi ñi ngi ci guuta ndax ñoom boobu léegi daal wanaguñ seen bopp taxawaay boo xamante mën a dóor Real te Benzema ak Vinicius Junior ak Modric si ñi ngi ci jaloore ndax ñoom daal ña ngay lekkee foofee ci na ci gone ak Atlético Madrid googee di Joao Félix yi démb daal dafa doublé waaw waaw ñëw na ca de match bi nga xam ne moo war a dox ca diggante Real ak PSG kuñ ca door daal doo dem ca quart de finale ya loolu daal la sunnaal yi gën a xëyee ñu ñëw ci sunu sport ma nga xamante ni ma nga ca Angleterre ñëw na ci Kevin De Bruyne dému daal moo joué Manchester City Manchester United waa Manchester United it ñoom it doxatuñ dara ndox daal waa United dému dañoo teel a bàyyeeku waaye nag Guardiola bi nga xamante ne mooy tàggat waa Manchester City démb daal xolam neexul ndax nee na waa Manchester lañ dooroon dem waroon naa mën a gën a bëri foofee ne ca Angleterre kon daal waa United ñu nga ci loo xamante ci ni daal baaxul benn yoon waa Manchester City daal démb duma nañ waa United ah, ah, waa ñoom ña ngay lakke fa fee ca Angleterre United nag fan yii yëpp doxuñ waaye nag bu leen fàtte nekk ci xasitandoo Ronaldo kon daal démb waa Manchester ngi ci góoto koo xamante ci ni baaxul dara ba tey suñu sport ñëwaat na de nee na démb waa United dañoo teel a bàyyeeku wax ma ne la 2-1 rek nga daal di bàyyeeku ba tax waa yun waa City démb daal xaw nañoo rey démb waa United la ko war a nag moo di 4-1 lañ leen dal di doon maanaam ñeenti bal ci benn dañ leen dal di dóor ba tey it journal yi ñëpp daal xëy nañ ci kooku nga xamante ne ne mooy tàggat waa FC Barcelone Safi nag jamono ji mi ngi ci jalwaari bu rëy tegale 5 match yoo xamante ne amoo ci benn défaite Barcelone gëj na ko def ko daal Safi ma ngay suufee waa FC Barcelone na ma ko waxee woon Barcelone ñëw ma fi pour course dafa kon daal ma nga koy defar sport yenn kaay Mundo Deportivo ñëw na ci démb FC Barcelone de nee Barcelone remontada la daal di def mën leen 1-0 ñu daal dem ba fekk leen faak 2-1 ka dugal bii mujj ba nag mooy Memphis Depay waaye nag journal bi daal waa FC de nee mii mi ngi lekkee bu baax a baax foofee ca FC Barcelone ndax daal mi ngi tegale ñetti match yoo xamante ne ni daal ca taadu sene ba lay ñëwee waaye daal bu ñu waaw maa ngi fi Depay daal ma ngay lakkee foofee ca FC Barcelone la ko waral nag moo di heure boo ñëwee ci cëppaal ndawul marché ba ca lay ñëw dal di dugal la dugal kon daal Memphis Depay Dani Alves ñoom ña nga xamante ci ni daal ñoo nekk ca FC Barcelone jamono ji dal di koy dóor bu baax a baax mu dal di dugg Memphis Depay daal ma ngay lakke foofee ca FC Barcelone ñu jugee ca Mundo Deportivo dem ca sport yéene kaay daal waa FC Barcelone gi daal ñi ngi ci loo xamante ci ni daal buñ leen teelu taxawal daal darañ nangu place ni fa la waa Real Madrid daal FC Barcelone ñoom daal bëgguñ dara lu dul daal nekk ca kaw a kaw waa FC Barcelone nag jamono ji bu leen fàtte ne ñoom ña ca troisième place ba ñu jugee ci sport yéen a kaay dem ci Corriere dello Sport ñëw na ci siiru de siiru daal démb moo suufee ñoom waa AS Milan la ko waral nag moo di siiru daal moo ñëw dugal nga na maami bii kon daal waa AS Milan ña nga ca kaw a kaw a kaw la ko waral nag moo di démb match bi nga xamante ne doon nañu ko amal démb daal siiru moo ñëw rek daal di dugal kon daal siiru démb suufe na waa ANG Milan Tutto Sport nee na siiru mii la ko waral nag moo di siiru daal siiru moo di dugal kon nag siiru démb nag si taskatu xibaar ba ñu jàkkaarloog siiru na ko yow siiru kat ni nga fubale tey ji match bi lan moo tax nga footballé ko mu ne man nii laa yàgg di footballé bii nag moom niwul ne chaque match rek da nga koy dugal waaye daal man nii laa yàgg footballé moom siiru bokk na ci ay waxam yi mu daal di wax nee na ay Milan naa fee def jaloore yu rëy rëy rëy wala daal bala ma fay jóge démb daal siiru la daal di yëkkati cat kanamu taskatu xibaar yi ba match ba jeexee ñu jógee ci siiru ñëw ci Corriere dello Sport ba tey ji ñëw de démb daal siiru moo suufe waa ay Milan la ko waral nag moo di bii ba mu nga xamante ci nii moom la dugal daal moo tax waa ay Milan gën a nekk ca kaw a kaw jamono ji nag waa ASC Milan bu leen fàtte ne ñoom ñoo jiitu ñoo nekk ca kaw a kaw la ko waral nag mooy dem zéro neuf ba nga xamante ni daal moo nekk ca ASC Milan démb moo suufee ñoom waa ASC Milan kon daal ASC Milan jamono ji may wax ak yéen ñoo nekk ca kaw place ba la ko waral nag moo di démb match ba nga xamante ni moom la ñu doo amal moo tax moom daal la match boobu daal la ñu gañe ka ci génne nag moo di zéro kon daal waa ASC Milan jàppale ne moo nekk ca kaw classement ba kon daal ay séménage ña ngay lakkee bu baax ñu ñëw ci Mendy moom nga xamante ci ni doomu Real Madrid la moom mi nga xam ngeen ne mooy latéralu Real Madrid ba waaye daal bu leen moom mii bu amaatee ab carton jaune max bi nga xamante ci ni moo war a wax ci diggante FC Barcelone Real Madrid classico 20 moom mi daal di Mendy Ferland Mendy bu ca amee carton jaune daal du fekk max bi nga xamante ci ni mooy dox ci diggante Real Madrid ak. FC Barcelone classico ba moom mi daal match bu nga xamante ci war na ko footballal championnat su ca amee son bu fekk match booba nga xamante ci nii mooy dox ci diggante Real Madrid FC Barcelone ba tey ji Erlen Militao moom mi it bu amee kaxtoo son classico FC Barcelone Real de Madrid ba nga xamante ci nii la 20 mars lay amee moom mi daal di Erlen Militao du ko daal di fekkee moom Mendy Militao ñoom daal ku ci am carton jaune xamal ne classico FC Barcelone Madrid doo ko dal di teewee loolu daal di xëyee ñu ñëw di match bi nga di mercredi moom lu ñu ci guuta la ko waral nag moo di Toni daal match bi war dox ci diggante PSG ak Real de Madrid moom mii di Toni Kroos ko daal di fekkee naa ni xëy nañ ci Rashford doomu Angleterre boobee daal di Rashford am na lu ko métti torop ndax jamono ji daal amul temps sax foofee ca Manchester bu United waaye nag bu leen fàtte ne juin la contrat di jeex waxagu ca dara nag waaye United bëgg nañ ko koy yokkal waaye moom nag jëlagul benn décision kon daal Rashford ba ne jàppale ne moom mi daal amatul temps sax foofee ca United la ko waral nag moo di waa United jamono ji daal ñu ngi ci guuta ndax defatuñ lu baax seen joueur dem demoon na ca Portugal daal jaaxal na journal yu bëree bëree bëri yoo xamante ci démb waa Marseille daal démb dugg ci ne daal amuñ ci benn ndam kon daal waa Marseille ñoo newoon ci deuxième ba waaye waa wàcc nañu leen ndax te ma nga xamante ne moo duma woon Paris keroog benn bal ci dara ñoom daal ñoo nekk ci deuxième ba pare jiitu ñoom ñoo ci topp Safi mi ngi ci jaloore de Safi daal jamono ji ma nga ca troisième place ba Seville topp ca Real de Madrid ma war ba yaa xam ne Munich moom it ngi ci guutu goo xamante ci ni daal match bii ñoom ko dóorut moom it day toog Manchester City moom nag keroog dafa daal di dóor Liverpool keroog dafa daal di duma Inter Milan match yi daal jàpp leen ne huitième de finale ndax Ligue des champions retour ñoom ñi daal match yi nga ngeen jàkkaar lool xam ngeen ne ñoom ñi ku ci dal di dóor doo dem ca quart de finale nga xamante ci ni mooy amee foofee non li ci gën a doy waar nag moo di Real de Madrid moom mii nag mi ngi ci guuta la ko waral nag mooy joueur yu bëri daal dañoo am ay gaañu gaañu Mendy moom it xam ngeen daal bu amaatee quarante soixante match yooyu du ko dal fekkee Safi daal mi ngi na cinq match yoo xamante ci ni yëpp da cee am victoire kon daal Xavi Hernández ma ngay liggéey liggéey bu ama am solo foofee ca FC Barcelone ñu jigee ci Xavi Hernández ñëw ci Adama Traoré moom mi nag tàng na jër Adama Traoré na boppam démb nag daal Adama Traoré wane na boppam amul bii waaye daal joué na lu ama am solo moom la journal yëpp daal di gën a xëy ñu ñëw ci match bi nga xamante ni moo dox ci diggante Monaco ak Marseille dem ci Ligue 1 champion France ba waa Marseille nag dugg nañ ci la ko waral nag moo di waa Monaco dañ leen duma benn kookee nga xamante ne doomu Belgique boobee di Hazard Hazard nag bu ngeen xoolee yii yëpp daal jëloon di Hazard bëgg-bëggam foofee ca Chelsea boo demee nanguwaat diisam nekkaan mag ma la ko waral nag moo di guddi gu mu nekkee foofee ca Real Madrid amu fa tànn sax ñu ñëw ci Valverde moom mi nag xam ngeen ne entraîné na collectif maanaam ànd na gaa yëpp daal di entraîné kon daal di jàppale ne max bi war a dox ci diggante PSG Real de Madrid di mercredi jëm ci huitième de finale Ligue des moom mooy daal di nga xamante ci ni moo di Valverde ca daal di bokk la ko waral nag moo di amoon na ab gaañu gaañu waaye daal la dina wér Xavi Hernandez Hernandez daal daal nii daal ci Ligue des Champions bu demee nag daal di koy jël la ko waral nag moo di ma ca troisième ba te nee yëmul ci troisième ba première ba daal la bëgg nangu moom mii di Xavi Hernandez kon daal jàppale ne FC Barcelone moom Kylian Mbappé waa PSG wax nañu ko lu leer naan ñi nañu ko xaalis bëri bëri bëgg mu yokk contrat ak waa PSG bëgg nañ daal buy dem ca Qatar nekk sur PSG ci kanam tuuti ay yeneen xibaar jërë ngeen jëf am ngeen jëf abonné leen partage